alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu mbokk jullit yi mbokki taalibe yi mbokku téléspectateur Kossy TV ñu ngi fii ci kër suñu bàyyi suñu sëriñ Cheikh Mountakha Ibrahima Niass fekk fii doomam Cheikh Ahmadou Mountakha ak lenn si njaboot gi ñu fas yéene jël ay kàddu pour woote ko si bés bu mag bu ñuy waajal si turu daayira bi na fila ci Dakar ñu bàyyi leen ak kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa يا إمتي شيخ أقدر لنا بهذا المهدري وتعتفي بالنظرة تعطي لنا بصبر إن سنت على بعد جل جل أنت صلى الله عليه وسلم دي غرام نيار خليفة مي كجمل مولانا سي أحمد تجان مولانا سي إبراهيم رضي الله عنه دي غرام سانغو جوتاي مي سي أحمدو ابن سن منتقى إبراهيم رضي الله عنه دي أهركم نين كوي دفير لو سبب جوتاي بي بروغرام لا بو خامني موي بروغرام بو خامني مي أمي فلي سي تشاوري سامسام julli waaye bala ñaay wéyale kàddu gi dañu xam ne ku min jotaay marina min nañ ko tijjee ak alqurani karim ndax bàyyi ñis loolu la ñaanoon fa tajaalu isu kitaabikal karim karamati ilaa li xaalikal azim kon bala ñaay sori ci kàddu gi rek dañu jox mbokki taali bi mu jàngal ñi lenn ci ay alquran aoudu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم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 waa وعن وارث سره مولانا cheikh al islam alxaaj Ibrahima Niass ñu ngi nuyu mboolem ñi ñuy seetaan ci àdduna bi yëpp ci Kossy TV di sant yàlla bu baax di nuyu alxalifatul muazzam xaadimul ummati cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ànd ak waaye ñu ngi nuyu imaam al akbar imaam cheikh tidiane ali Cissé radiallahu anhu di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam may ko wér ñu ngi nuyu porte parole Medina Baye cheikh Mouhamadul Mahi ali Cissé di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi lool waaye ñu ngi nuyu xalifa Mawlana cheikh Ibrahim ci Dakar mi cheikh Mouhamadul Amin Baba ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàggal ko fi te may ko wér ñu ngi ziyaare mboolem ñu ngi seetaan ci àdduna bi fu ñu mënti nekk nuyu mbooleem njabooti bàyyi ak mbooleem sëtu bàyyi ak mbooleem ma maam Alaaji Abdoulaye ak mboolem kuy julit ñu ngi lay nuyu di la ziyaar ñu ngi yëgle conférence boobu nga xam ne moom la def ci Dakar at mu jot caaroy Zamzam 3 te di karo foofu lay amee ñu ngi ci oo ñëpp dimanche le 22 mai incha allahu taala foofu lay amee à partir de 17 heures ñu ngi ciy invité ñëpp ñu ngi ñaan na ci ñëpp teew nga xam ne ay ndaw yu bëgg yàlla ah, bëgg baax bëgg jub ñoo ko créé mi daayiratul mutahabina fillah bés bi nag dañ koy def te yàlla rek tax ndax danañ fa xëy jàng fa kaamil yu bari dana am ñu jugee fii ci Medina ay sëriñ daara dem foofu jàng fa kaamil waaye mboolem daara bu nekk Dakar ñu xam la nga aju ci Medina Baye nekk taalibe Baye dañ la oo ñëpp ñu dajee wàccee fa kaamil yu bari buñ paree daal di koy xatmu ci kanami suñuy kilifa yëpp wote baa nonu satu molana cheikh Islam aj Ibrahima Niass bay Cheikh Ahmadou Muntaxa wote na ci turu daayira mu na filla ku ci beug lu leer hotel ci numero telephone fay du bi ci ji Seydou Baay bi ci barxama ñu ngi leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV